asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ci ndigalul sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke xalifatu sëriñ Saalihu Mbacke yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér sëriñ Cheikh Anta Mbacke xalifa Cheikh Mouhamadou Roqaya Mbacke mooy ñëwaat ak yéen di yëkkati ay kàddu kàddu yi nag jëm ci sant mbooleem taalibe yi nga xam ne aju nañ ci moom te yaakaar maam Cheikh Anta Mbacke moo xam mu di ab seex wala ab taalibe ci doxin wu rafet wi nga xam ne ñu ngi koy ànd ak moom ci lépp loo xam ne dëgmal na ko jëm ci sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mu tàmbalee ko ci suukaru koor sa sëriñ bi nee na mi ngi leen sant bu baax di leen sant ci màggalu Daaru Salaam gi di leen santit ci tabaski yi waaye di leen santit nag ci màggalu Tuubaa gi ak taxawaayu rafet yi ngeen xam ne am ngeen ko ci di leen sant bu baax ci liggéey bi nga xam ne génn nañ ko barki dem ak liggéey ba mu woote woon ca Longoor Mbay di leen séentu nag ci liggéey bi nga xam ne at mu jot sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Saalihu dana ko ci tàllal loxo muy liggéeyub koom te ba fi sëñ Saliou jógee ak léegi tollu ci fukki at ak ñett at mu nekk ànd na kook Serigne Cheikh tey ñaan mu yàgg lool Serigne Cheikh nag nee na mi ngi ci soññ ñëpp nag xam le ne depart bi alxemes la war a doon war a yema ak 21 incha allahu rabbi mu ti ci soññi jëwriñ yi nga xam ne moom la àndal di liggéeyal Serigne Touba di ci jiital Serigne Abdou Dieng Daaru Salaam Serigne Abdou Baaxe Mbacke Gaawaan Serigne Mamor Bousso Mbambilor Serigne Abdou Fari Daaru Baaxum Serigne Modou Mamoun Dia Daaru Salaam sëriñ Cheikh Mbay Longoor sëriñ Mor Silla Baye Fallou Maam Cheikh Anta sëriñ Modou Silla docteur sëriñ Daam Thiam Mbar sëriñ Moussa Thiam Thiamène sëriñ Ndiaye Alaaji sëriñ Ndiaye Ngayoxeem sëriñ Cheikh Ndiaye Baku Njéeme sëriñ Modou Roqee Fall Ngeme sëriñ Ibrahima Ndaw Tàllañ sëriñ Modou Roqee Tine Bari ak alhaaji sëriñ tiin sëriñ Aliou Fay Ngangaram sëriñ Ousmane Diouf Tongol sëriñ Modou Diom Bambay sëriñ Ndonga Mbay Sindiane sëriñ Cheikh Dieng Sugeer sëriñ Dame Diouf Kokki sëriñ Mamoun Diagne Ngaay alhaaji sigu jaxate daaru salaam sëriñ abdoulahi tin kër coon sëriñ baba tin daaru kibaari sëriñ pap tin daaru kibaari serigne sidi jaxate kaolax ak li ko wër gépp wa daarul mannaan xayga sëriñ baa ngi leen di soññ bu baax di soññi waa ndéréen di soññ it waa càqami di soññ it waa ngëtt gay di soññ wa waa muslaaj di soññ wa waa njaane di soññ waa ngalik bàyyiwul kenn di soññ itam waa daayira si sëriñ baa ngi leen di soññi di soññi sëriñ Modou Thiam ak soxnaam soxna Fat Thiam taxawaayu rafet ñu am ko ci liggéeyub koom bi di soññi njabootu alhaaji Mouhamadou jum gépp ci njiitul sëriñ Bàcci Dioum di soññi alhaaji Ndongo Fall transporteur Dakar njabootuk alhaaji Momotine transporteur Dakar sëriñ Alla Ngom ak mboolem njabootuk alhaaji Seex Ngom képpi ko ko sëriñ bi nee na mi ngi soññi ñëpp ci bis liggéey boobu nga xam ne liggéeyal Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke la Serigne Cheikh di leen ci taalal loxo at mu jot ñu war koo defee nag ca daara yi Daaru Salaam Xelkom départ bi war a nekk alxames la 21 incha allahu rabbi Serigne bi nag nee na. dëkk yi muy bëgg a tudd fenn fu ci nekk am na départ ay ay oto dana fa déparé bu dee daaru salaam ci kër gi am na départ daaru baaxum caameen euh, ndàngalma bambay séréer bambay daaru kibaari reefon mbambiloor xombal ak kokki fenn fu ci nekk am na ab départ képp koo xam ne nag bëgg nga ci ab leeral wala nga bëgg ab départ fa nga nekk te mbooloo ne fa mën ngaa woo alaaji sëriñ Wadd ci numéro téléphone 77 537 11 88 77 537 11 88 sëriñ bi nag nee na mi ngi rakkam yi mu bokkal sëñ Modou Roqe yëpp tàmbalee ko ci sëriñ Modou Mamoun mi nga xam ne mooy seen jëwriñ nee na mi ngi ciy soññ ñëpp di xam ne liggéey bi daal bu ko sëriñ Cheikh dee woote ci Daaru Salaam di ko yebal njabootuk sëñ Modou Roqe jëmmi sëñ Modou Roqe yaa tax kon nee na mi ngi ciy séntu ñëpp di ñaan képp koo xam ne teew nga xel koom yàlla yàlla faj sa aajoy àdduna ak jooj àlaaxira wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu